chef de l'État defoon na benn discours mais ci discours am bi dafa am euh, luñ ci dégg loo xamante ne bon ñëpp commentaire nañ ko te bëggoon nañ si nga joxe sa avis ndax am na ci benn phrase bu mu wax xëy na phrase bi am na ñu mu rëcc mais am na ñu ko téyeyaat ba mu naan am na nit yoo xam ne ci réew mi même bu ñu tooñoon tey nga jàppaleen yóbbu leen justice bu nekkee loolu dafay yóbbu ci réew mi ci guuta nga bàyyi moo ko gën. xam nga loolu wax la boo xam ne. Euh, mun naa wax président sa waaye wax boobu euh, wax bu garaaw la. te ñëpp dégg nañu ko. d'ailleurs man def naa ci commentaire. Euh, charte réew moom moo ne citoyen yëpp n'est-ce pas dañ leen war a yemale. ndax kanamu yoon citoyen yëpp képp ku doomu Sénégal rek nekk citoyen Sénégal n'est-ce les hommes naissent libres. voilà et égaux devant, devant la loi. Hmm? Euh, mënuñu fi toog di naan parce que da nga may milice. Hmm, wala boog da nga amay mbooloo sa gannaaw euh, mun nga rey nit nest pas te yu ñu téye eh, wala boog euh, mun nga c'est euh, pas je crois que ay kaddu yu yu graaw la yoo xam ne warul génne ci gémmiñu chef d'État war na ko mën a xalaat waaye di koy génne je crois que dafa baaxul parce que day wane ni que ci biir réew mi citoyen yemuñu ci kanamu yoon mhm. te loolu dafa baaxul loolu mooy tax ba xale yi dañuy dem ba dootuñu gëm ne Euh, yoon am na parce que yoon su yemalewul ñëpp kan mooy respecté yoon kenn du respecté yoon. mais est-ce que du cadre yu mel noonu mooy yóbbu réew mi ci guuta ah mais bien sûr et puis am nga rek dama ne Cheikh Béthio kan moo ko ci biir kër. ci biir ci biir Sénégal. Cheikh Béthio na ko yàlla yàlla yal na ko yàlla yërëm fu mu tëddee mu yokk leeram. Cheikh Béthio kenn ëpp woon mbooloo ko ci biir Sénégal. waaye bi ko bëgg a téye ko. am na yeneen cas eh, kon day wax rek. xëy na. la situation politique tax na mais bon amul intérêt pour arrêter di wala arrêter kële wala boo kële dafa bokk ci ay ñooñam mu ngi yaakaar ci moom soutien man xaaral du ma ko téye waaye su dee amul ci yow benn soutien si le plan politique yaakaar ci yow dara sur le plan politique soo defee dara daf lay téye waaw kon euh, ay kaddu la loo xam ne vraiment euh, waruloon jóge ci président mun na ko xalaat waaye warul yëkkati baatam bu wax ko ci kaw parce que encore une fois ay kaddu la yoo xam ne euh, day tàbbi citoyen yi démoralisé par rapport à, à mais par rapport à ça gisoo nii bon ñun suñu gouvernant yi bon ñu ñu jiite suñu autorités yi à chaque fois dañu am problème communication heure bu ñu génnee wax bon d'habitude wax ji bon du doon wax boo xamante ne dafay tegu ci temps quoi dafay logique. mais xam nga loolu euh, loolu la ñuy wax toujours euh, état Sénégal mhm. ay fonctionnaires ñoom ñoo ko ëmb en Abdou Diouf loolu la fi bàyyee Senghor loolu la tabax Abdou Diouf yore état bi euh, ci condition yooyu waaye libéraux yi bi ñëwee su mooy libéraux yeeg mooy Ablaye Wade ak Macky Sall yëpp c'est des libéraux <laughs> te ñoom yëpp benn njaboot bi la bi ñëwee mais dañuy dañuy destabliser déstabiliser l'état li jëlee politiciens jox leen ay fonctions yoo xam ne du seen rôle du seen rôle waaw xëy na fonction ministérielle politicien war na ko mën a yore waaye ñi ko wër ay directeur de cabinet ay ñeneen conseils yi war nañu nekk ay technocrates yoo xam ne dañuy jàng communication nest pas dañuy jàng administration ñu leen di xelal waaye soo bëggee doxal lépp ci kaw politique ñi la wër yëpp ay politiciens lañu kenn mun la ci jox kenn mun la ci xelal jox la ay conseil ay ay conseils techniques yu yu am solo évidemment tu fais des erreurs donc faille am na. ah mais y a des failles la communication même par rapport am passé bi am na am na faille yoo xam ne moom xëy na moomu ñu tey ci li ñu nekk nii. Mhm. Euh, li nga wax parce que bon def nga transition bi yaa ngi ko.